dina fekk dóor na la dóor yu metti te ils sont à ça ñoom ils sont pas prêts yeneen candidats yi nga xamante ne ñoo nekk ci biir it ils sont pas prêts ak les yi nga xamante ne ñoom dañoo bëggaat beneen chance ñu ne nañu reporter ay élection foog ñu comprendre ne reporter ay élection yi nga xam ne moom la ñu def ni Nabokor c'est très grave très grave dans un pays démocratique on est mm-hmm. en train d'en discuter mais grave te li gën a li ma gën a li ma gën a métti ci yëf yi mooy ndeysaan ñun ñu ngi toog di wax ñoom politique yi ñu ngay wéy di conférence de presse suba ngoon guddeeg bëccëg amee micro yi suba ba ngoon waa jaa ngi tëral nice. di def lu ko ne. mi ngi tëriwule nice. Mhm. bëggoon na reporter reporter na. Mhm. léegi qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui au niveau de l'Assemblée nationale. fa laa bëgg ñu ñëw. ah Nabou. Mhm. Nabou Cor. lii xew Sénégal nii. bu nit ñi tëddee nelaw tranquille yeewu tranquille di doxa seen soxla tranquille xamal leen ne kii kat wax dëgg yàlla may ngeen ko buntu nag. Mhm. bu mu war a mën a prolonger tuuti <laughs> toogaat tuuti ba ci kanam. toogaat te te te mbirum mbirum rapport bi dafa daf dañ ko wundoon junjoon euh, ci euh, li nga xamante ne mooy dialogue bi dialogue bi fi jotoon a jàll ba far ñu ne euh, bokk ci. waxtaane wuñu waxi report donc report yàgg nañ ko wundu mais report lan la mën a jural réew parce que ñu bëri dañoo jàpp ne rek dañuy eh, recommencer processus bi euh, ña demoon uti daal dem uti jiwaat ñu indiwaat leneen maanaam ñu tàmbal recommencer à zéro en quelque sorte mais lan la mën a euh, jural réew mi ci wàllum économie ndax gis nañ fi ñu toll nii depuis presque une année ñu ngi wax waxu élection di ko wàcc euh, jàppal candidat bi bàyyil candidat bi tax na ñu ci bëri euh, ñi nga xam ne dañoo waroon ñëw pour investir au Sénégal ñu banque seeni loxo actuellement bu ñu waree repousser waat ces élections là ci wàllum économie lan la mën a jural Sénégal. non c'est-à-dire que crise amul woon de avant repousser. Mhm. crise a ngi door a am. Hmm, d'accord. te léegi itam ma waxaale ne ñi doon wax naan. Ousmane mooy jural ay ay coow ci réew mi xeex ak manifeste léegi moom ma nga ca kaso ba. mooy li xew kan lañ koy ji. ku jooy ji ñu dondkat lañ koy teg. loolu itam laaj la. Mm-hmm. ma sànni en passant. Mm-hmm. Nabou Cor ce qui est en train de se passer c'est qu'il y a eu des candidats. Mm-hmm. qui ont fait tout ce qu'il fallait faire. pour démarrer une campagne électorale heure bii waroon na fekk ñu nekk ci campagne électorale tàmbali ko. ñu préparé seen lépp dajale seen lu ñu am ak lu ñu amul natt seeni kook pour waaj dem élection dénk seen bopp askan wi te li gën a grave Nabou Cor xam nga mooy lan mooy mhm. on vient doter au peuple sénégalais leur droit le plus absolu c'est le droit à la souveraineté mmh. le peuple est souverain c'est au peuple de faire un choix par rapport ak président bi ñu bëgg tànn ce n'est pas la responsabilité d'un politique aujourd'hui le chef de l'État a soi-disant reporté entre guillemets ces élections-là jusqu'à quand on ne le sait pas mais moom na jàpp ne à partir du 2 avril nekkatu président. Mhm. ma ne ñu ne déet na waaye ñu ne dañuy woote dialogue kan lay dialogue kuy dem ca dialogue ba. bu fekkee dialogue ba ci bu njëkk bi c'était pas suicidaire mais ce dialogue mhm. ku ci mënti dem di nga jàkkaarloog Sénégalais tu vas nous rendre des comptes. Mhm. kan lay dialogueel ak lan lay dialogue dialogue kay da nga koy def avant ngay jël décision. dialogue doo jël décision ba pare ne leen toog ñu waxtaan. bu wootee waxtaan bii kan mooy dem wuy ji laa bëgg xam kan. aujourd'hui ce qui est en train de se passer dans ce pays-là c'est réalité c'est quelqu'un qui a une volonté de vouloir continuer à prendre des décisions sans pour autant prendre en compte l'avis du peuple mmh. on est face à des politiques yoo xamante ne seen intérêt bopp moo leen ñor askan wi ñoru leen ñenn ñi falu à tout prix à wala dara du xew ci réew mi loolu mooy volonté bi nga xam ne moo nekk di am te nag nañu jàpp ni li nga xam ne moom moo nekk di xew nii responsabilité bi ñoom kenn mënu leen ci génne ñoom ñi nga xam ne ñoo lancé moteur bi ñoo cuq machine bi mu tàkk ñoo ko démarré ñoo ko dawal ba mu yegg si fii léegi nag fan mooy destination finale bi sénégalais yi xamaguñ ko xamaguñu fan mooy garage bi de mooy moytuwul na mbabba garage lañ jëm. Mhm. dama leen di wax. Mhm. xamaguñu ñu jëm parce que ba fii ñu nekk ni on est dans l'incertitude totale. Mmh. Et ce qui va se passer à l'Assemblée nationale est une journée déterminante aujourd'hui pour le Sénégal. Mm-hmm. Parce que bu fekkente ne nii gis nañu ay député yoo xamante ne ña ngi jëm Assemblée nationale ma leen di fàttali bëccëgu 23 juin. fii ci mm-hmm. Sénégal. Mm-hmm. bi Ablaye Wade bëggee jaarale voté car bloquant. car bloquant. Sénégalais yi taxaw ne ko du fi amee te Wade bëggoon nañu ko ca yooyu jamono lool. yooyu jamono ñii ñi bëggoon nañu wàdd lool la preuve quand il est sorti il est sorti par la grande porte avec l'acclamation du peuple kii nag bu moytuwulee buy génn kenn du ko tàccu mm-hmm. parce que on vient de rater l'occasion de marquer un point déterminant et de confirmer que le Sénégal est une grande démocratie on vient de rater ça parce que li ñuy dund nii c'est une situation exceptionnelle inconnue du public sénégalais en fait ñun mosunoo xam lii mosunoo dund situation boo xamante ne mooy situation bi ñu président Macky Sall yóbbee te te te tey ñi nga xamante ne euh, ci car bloquant bi en 2011 euh, euh, ou 2012 23 juin ñoom ña taxawoon di xeex bay la ngaamu ci ay gri tey ñoom ñooy wax ci wàllum report. mën nañu les images sont son sont là te mënuñu ko weddi mais tey li war a xew ca ci assemblée nationale ajaratu euh, yi bu ñu ñëwee ci ci ci ci forme bi balaa ñuy dugg ci fond bi ndax vote bi tey lay amal euh, te ci fàttali euh, ñi nga xamante ne ñoo wundu vote bi di waa PDS ak waa APR soxla nañu lu toll ci quatre-vingt-dix pour mën a jàllale loi bi nga xamante ne mooy tuxal élection yi ba jëmi jamono tey bu fekkee ni Ousmane Sonko. dañu ko jiiñ ne euh, daanaka dafay def outrage au au magistrat. Hmm. Euh, fi ñu toll nii euh, Bassirou Diomaye fay ñu ñu daal di koy jàpp ci yu ni mel ci benn publication boo xam ne dañoo jàpp ne dafa gàkkal deru ay magistrat tey magistrat yi gën a féete kaw ci réew mi. PDS ubbi enquête parlementaire. Hmm. boo xamante ne dafa bëgg ñu saytu leen maanaam di indi xel ñaar ñoom ci seenug njub. Hmm. ndax war nañ leen bàyyi ñuy wëyale. Euh, lii nga xamante ne moom lañ namm tey ba far ay report di ci am. xam nga xam nga gis nga li nekk di li li nar a xew tey. dama lay mhm. expliquer ci lu gàtt rek. Mhm. pour man du combat wu politique. ah d'accord. combat mhm. ñoom ñi nekk biir assemblée nationale moomuñu assemblée nationale ay ndaw lañ dañ leen fa yónni. ñi nekk ci réew mi moomuñu réew mi dañ leen a réew pour ñu doxal. te lépp nag ay charte ay règlement ak ay loi moo ko tënk ndax dañu ne dañoo bëgg dundu dans une société organisée réglementée par la loi ba kenn ku ci nekk xam loo war a def ak loo war warta def loo warut a jéggi parce que li nekk di xew nii li tax may fàttali war contexte de 23 euh, juin mm-hmm. ce n'est même pas par rapport ak mobilisation ak nit ñi ñëw taxaw ak yenn dafa am loo xam ne c'est une responsabilité personnelle et mm-hmm. nañu xam ñoom député yi qu'ils ont une grande responsabilité sur leurs épaules aujourd'hui man Badara ma far ak yow ak ma bëgg la lool du tere man bu ma la gisee ngay dem ci lu dul yoon ak lu dul dëgg du tere ma taxaw ne stop man nag far nag yow nag waaye Badou nag yow fi nga ma bëgg yóbbee nii gaar bu amul destination la jaaduwul dëppawul ak yoon te man gëm naa ni biir Benno Bokk Yaakaar xanaa ba tey dese na ay démocrate dama ko yaakaar rek de PDS moom fu mu nekk nii terrain bi ñu nekk ñoom buux mu dem rek lañu xam xamuñu stop ndax comme ñam nañ benn yoon jàll na ñam ñaari yoon jàll na du ñu arrêté ti mais on a besoin au niveau de l'Assemblée nationale mmh. de députés qui ont conscience qu'il s'agit de l'avenir d'un pays on ne parle même pas de politique mais on parle de l'avenir et de la destinée de tout un peuple nabu Cor mhm. juge yi nga xamante ne ñoo nekk ci conseil constitutionnel président de la république moo leen tànn ngir yàlla mhm. mais président de la république lu mu nekk nekk chef d'état il est aussi chef de parti Benno Bokk Yaakaar c'est même contradictoire devenir biir que choix bi nga xamante ne def nañu def na ko choix boobu baaxul ndax finalement juge yi nga xamante ne ñoo fa nekk suñu xel dallu ci ñoom mais député du mooy àtte magistrat man dem naa ba di parti démocratique sénégalais bu fekkee ils ont assez d'éléments de preuve par rapport ak li ñuy wax mais pourquoi ñu porter plainte juge yi directement lu tax ñuy dem assemblée nationale man damay adressé sama plainte kay yóbbu ko fa ma ko war a yóbbu maak yow ñuy yéeg a ko wàcc yéeg a ko wàcc yéeg a ko wàcc ba keroog yàlla di def li mais comment tenir en otage tout un peuple pour la destinée d'une seule personne tu tiens en otage tout un peuple pour la destiné d'une seule personne et du nom de Karim kenn nangu ko ba pare ne moom ëllëg ci biir dafay soucier wu ci avenir u waay waay na ko nangu moo yëy nangu moom ma nga Qatar toog na ñëw na ñëw Sénégal yow di xeexal koo xam ne bind la séq ak yow activité bind ak tweeté la séq ak ñun ñun on n'a pas vu Karim Wade fouler le sol sénégalais on l'a même pas croisé quand on était à Doha sincèrement on l'a pas vu venir ici au Sénégal pour wax ne man xeexu askan wi moom ma tax a jóg tweeté ak bind la séq ak ñun tweeté réseaux sociaux foofu la séq ak ñun de. Mhm. waaye yooyu ñun ñu koy xeexal ba mu juróon ñu ñu reporté ay élection bañ ne den na waaye ne dañuy dem assemblée nationale waa nanu xool daal yëf yi ni ñu koy gën a poussé ñenn ñi naan non 6 mois xam nga bi nu ko defee day tombeek euh, euh, xaw ma màggal Touba beneen bi ci topp mooy xam naa dafay tombeek nawet. Mhm. waa comme day tombeek nawet est-ce que duñ ko xaw a pousse yóbbu ko fii mais yéen ñii kan lañ yàpp. Mhm. Sénégal daal kartum bolot la bu ñuy joué ku gañe yaa gañe ku perte yaa perte. Mhm. mais nabu koor. xale yi ma gis démb ñuy wàcc ci mbedd bi di manifester mu amaat ay yeneen vague d'arrestation yu ñu am démb fekk ci la longue liste bi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir kaso bi. Mhm. ñoo ñu di dundee yaakaar. bu ñu organiser ay élection vingt cinq février ñoo am président bu bees ñoom ñu mën a génn ci kaso bi ñooñu seen yaakaar na sax sénégalais yi nga xam ne ci deux mille muy metti ak muy neex. bi ñu annoncé ay chiffres ni Macky Sall moo gagné ñu nanguwaat toog di muñ pendant cinq ans ay woykat yu mel ni Canabaas génne woy naan bu leen sànni xeer nañu téye suñu carte benn màndarga lañu am muy encre indélébile. Mhm. ci juróomi at yooyu lu ne xew fi lu ne ay manifestation ay nit ñu ñàkk seenu bakkan ñooñu di jooy seeni doom ba tey amaguñu enquête ba xam kan moo kan moo kan moo leen faat wala lan moo jur contexte bu ni mel ni quelles sont les yu ñu war a situer tous dara amu ci. des rapports à ne finir. des rapports à ne plus en finir dara. Mm-hmm. Nabukoor vie sociale bi di metti dara sénégalais yi di gën a sonn di lott di xiif di mar dara xewu ci ñu jàpp fi ay nit tëj ci kaso bi ba tey. dara xewu ci ñooñu ñëpp di muñ ne noonu nañu toog xaar ndax ñun sénégalais sonn nañu sax ci xeex beeg wàcc bi li ñuy def mooy élection yi day ñëw ñuy wàññi ay weer décembre janvier ba février nga dugg février wara conte compter ne yow 25 février yow di nga mën a dugg yow ci urne yi wax li nekk ci sa biir xol exercer sa droit bi gën yomb ci droit wu citoyen yi mooy exercer sa souveraineté tànn mm-hmm. beneen jiitu réew mu bees ñu ne la doo ko fi tànnee wala di nga ko tànn waaye bu ma décider date bi. te may tànn ñiy jël jël responsabilité askan wi yëpp dégg ay député assemblée nationale député ya fa nekk nanu xam ni nit ñi dañoo sonn ah. Mm-hmm. Nabu Koor askanu Sénégal sonn nañu. ñun sonn nañu on est fatigué épuisé de tout le temps di toog di wax loo xamante ne nii bu dee dañuy yaakaar ne ñoom parce que ñoom dañ leen considérer comme des gens qui sont nos ennemis ils se trompent lourdement on n'a pas un problème avec eux on a un problème ci ni ñuy yoree réew mi le peuple sénégalais est fatigué on est fatigué de vivre dans la pression fatigué de vivre dans une tension boo xam ne xamuñu kañ lay jeex ñun li xew ci yeneen i réew ñu mu dal suñu Sénégal gii quand on se bat pour l'émergence on ne fait pas de telle sorte qu'on se dirige vers un recul démocratique ça ne va pas de pair aujourd'hui les gens n'ont même pas besoin d'assiéger l'Assemblée nationale c'est aux députés de prendre les responsabilités de se dire que nit taxaw na ci biti nit ñàkk na taxaw ci biti ñu ngi may xool a xoolu ñu ma yàllaa ngi gis de te wallaahi azim yal nañu yàlla atte ak képp koo xamante ne da nga bëgg suuxal gaalu senegal gi képp koo xam ne da bëgg jóg pour gën a teg askan wi loo xamante ne ni yaa ngi koy teg te xamoo fan nga koy fan la nit ñi di jaar billaahi wallaahi tallaahi yal nañu yàlla atte ak yow. sénégalais xamul coow. xamul xeex xamul xuloo. nit ñi bu ñu xeexee xuloo coow rek sës nañu ba ci miiru wis bi. Mm-hmm. gënalul kenn. tey ngay xëy say doom war a jàngi nga naan leen toog leen ci kër gi ndax xamuloo xamul xamuma situation réew mi nan lay tëddee. Mm-hmm. ngay xëy di gis pratiquement syndicat yu ci bëri d'accord ak le fait que aujourd'hui on dit non au mm-hmm. ce n'est pas un vain mot s'il vous plaît prenez en considération l'avis des Sénégalais les députés ñi leen fa teg. wallaay du ñu ngeen àndal ci wàllum politique askan wi leen tànn yóbbu leen ci pencum ndaw réew mi vous devez prendre des décisions importantes pour le tournant de ce pays là mhm. te on ne peut pas parler que de politique parce que la politique dundaluñu feesalul suñuy biir nañuy waxante dëgg tey mhm. seet yàlla ci li ñuy def lii ngeen di teg askan wi metti na ba ci kanamu yàlla naqari nanu de mhm. metti nanu lool dañu amul pexe amuñu pexe ñun bu ñu mënoon sax dañuy bàyyi dem toog suñu kër ni ñëpp croiser les bras di seetaan. la preuve bi ñuy xëy sax ñëpp lay artu bu leen dem bu leen def lii bu leen def lii mais pour pourquoi reporter ces élections yóbbu ko ban date pour defaat lan ñu recommencer waat processus sénégalais yi dañoo sonn psychologiquement nekkatuñu pour dire vrai ces politiques nu nu tiennent en haleine wala nous tiennent en otage depuis belle lurette chaque jour on ne parle que de la politique H24 chaque jour ci la wax mais sénégalais yi dañoo soxla benn moment de repos dañoo soxla souffler dañoo soxla nekk ci yeneeni business ñii daw nañ génn réew mi ñii jël dugg nañ ci gaal bi ñii def nañ nangam mais Sénégal mami de 1960 ba tey ñii ñu toll nii ñaata yoon la fi ay problème am dafa tax ñu mës a reporter ay élection lan moo fi xewul ci at bi ñu génn wala trois ans yi ñu génn dafa tax ñuy wax ay waxu report ay élection reyuñ fi juge juge démi euh, démissionné euh, démissionné wu fi lan moo tax à ce moment précis ñu toll ci nit ñi naan nañu dem ci ay campagne électorale nañu def nangam nañu mais pourquoi penser à Karim Wade bàyyi vingt candidats yi nga xam ni le conseil constitutionnel bàyyi na leen ñu jàll euh, ajaratu mami surtout côté euh, Nabou côté boobu noonu nga waxee parce que je ne me trompe mhm. pas en 2011 bi Abdoulaye Wade bëgg loolu noonu euh, amoon na benn temps wax na ko avant ñuy waajal élection mhm. mais tey ñu ñëw ba ñi euh, à la veille démarrage des camp du campagne électorale yi. Mhm. annulé ko j'ai entendu Anta Babacar Ngom mu intervenir mu wax que ni. j'ai déjà perdu des milliards. imaginel kooku noonu et sont des y' a plus candidats yoo xamante ni si nii bi ñuy def seen joxe seen question wala di financer lu ñu mel. seen ay mm, kii seen ay militants ñoo ko dajale jox leen. Mhm. est-ce que il euh, li ñu investir pour le moment dinañ ko mën a amaat est-ce que. Euh, mais non c'est clair. de benn découragement ci yenn candidat yi donte ñeen si am nañ ay kii parce que de maa ngi gis Thierno Alassane Sall ay ay otoom yoo xamante si mooy seen pick-up yooyu noonu. ñu mhm. pour mu musique mhm. yooyu noonu. muy circuler nga xam ne kii pare woon na ba pare moom. pour euh, joxe nañ ay avance Euh, def nañ ay investissement ci yenn oto yi jënd ay oto def lu nekk tey nga xëy ñu ne la euh, euh, doo doo def li nga xamante ni moom mooy campagne donc man je me dis que ni forcément dina jur benn découragement ci yenn ñi nga moom ay candidats parce que li ñu dépensé mënuñu ko amaat c'est impossible dépense ci ay parrainage faire le tour du Sénégal mm-hmm. essence bi nga lakk rek c'est des millions Mm-hmm. nga def tour des tour du Sénégal euh, euh, finance ci yenn yi jënd lu nekk nga def ko ku ne xam na ni campagne électorale ay milliards ñoo koy ay millions ñoo koy def du moins bu àggul ci ay milliards quand mm-hmm. euh, campagne yombul nga war def tour du Sénégal préparer ko bañ ne la suba la. ñu ne la non non euh, quelques sax ñoo si ñu ne la euh, non non doo doo def li nga xam moom mooy campagne bi man je me dis que bu doon man la gën naa ne su ma découragé wul tamit léegi tey bon nañu waxante dëgg le président Macky Sall moom bu ñëwee motif yi mu ñu tegal nee na euh, dafay reporter parce que dëkk bi dafa am instabilité ndax dafa am ñaar ci ay institutions yoo xamante ne dañooy am ay problème te bugg ci woon dugg muy législative ak kii le législatif et le judiciaire wax dëgg yàlla ñu am problème moom mu bañ cee dugg waaw nañu waxante dëkk moom ñooñu la ñan la ñan la ñan la consulter juge yi fi nekk ak nangam ku leen tabb. moom waaw nañu waxante ñooñu lan lañ ciy wax. gis nga gis nga lan lañ ciy wax bu jëlee décision reporter élection yi moom moo leen tabb premier ministre la wax moom moo ko fi andi. gis ngeen président euh, assemblée euh, <laughs> ñëpp moom moo leen tabb ñoom la constaté est-ce qu'il fallait pas xamante ne moom mooy kandaay wala mu déglu tamit wala dialogue bi muy wax. waaw mais dadul déglu peuple bi nga xam ne boobu ba tey laajuñu dara ajaratu ma mi léegi la ko la ko la ko évoqué. Mm-hmm. ñun laajuñu dara lu dul ay élection am on ne demande rien lu ne xew na fi boo waxee sax léegi finalement xale yi boo leen waxee dañ naan la ñun xeexuñu sànniwuñu xeer taaluñu na hmm. dañuy xaar ba 25 février ñu daal di dem voter commencé di lancer seen i campagne di euh, di fexe ba nit ñi di leen wax ñu dem retirer ji seen i carte électeur mën a dem voter ji massivement waaw ku def loolu xanaa bëgg na jàmm. léegi ban problème moo fi war a mën a am ba ñu bàyyi vingt candidats yi man c'est ça mon problème jël vingt candidats yi jël conseil constitutionnel euh, euh, li nga xamante ne décision bi mu jël ñu jël ko ah, Amadou da nga ko ci génne ah, ah ñaata la ah, ñaar génn nañ waaw waaw la Karim bokkul woon 19 19 Rose génn na Rose waaw wax nga dëgg Rose génn na <laughs> Rose génn na jël leen tegee leen fële mais mami lan mooy responsabilité conseil constitutionnel ci ci moment bi. parce que conseil constitutionnel euh, amul crédibilité am la ñuy la ñuy mettre en doute. non non mais conseil constitutionnel sincèrement ñëpp xam nañu ni.